bu baax na baax na ah. euh, je commencerai comme toujours par rendre grâce à Dieu parce que si aujourd'hui nous avons réussi tout ce travail c'est parce que les Sénégalais nous ont dit oui et ça depuis le début je pense que je l'ai déjà dit lors de notre dépôt de caution que les Sénégalais nous avons parrainés Les Sénégalais ont à la caution et aujourd'hui, on a eu ce travail. Nous venons euh, et quelques parrains au niveau national. Donc a réussi ça, parce que les Sénégalais nous ont dit ça depuis le Donc euh, je que c'est ce que je voulais dire. C'est peut-être que c'est l'émotion, mais euh, de valider les 47 000 parrainages que nous Et j'en profite pour vraiment remercier les Sénégalais de tout bords. Vous devez combler On devait combler 13 000 et on a validé plus de 16 000. Donc euh, c'est euh, grâce aux Sénégalais encore que je remercie. autour du système un système informatique et comme tout système informatique, il y a des failles. Mhm. Mais je pense que tous les candidats qui ont eu à un travail quand même assez sérieux, sont soit euh, au premier tour ou au second tour. Donc euh, je pense que nous, a travaillé. Euh, si on a eu ce résultat-là, c'est parce qu'on a vraiment travaillé. On ne on jamais permis de faire des raccourcis. On a travaillé, on n'a jamais euh, changé de cap. Et c'est pourquoi on a réussi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Madame Dien Penda, mandataire de la coalition Papa Djibrifal, président. Et j'en profite également pour dire aux Sénégalais, on, participera à cette Oui, c'était un défi parce que c'est de filtre. C'est un système Mais c'est un défi a pas arrêtés, donc on l'a réussi, alhamdoulilah. Ah, ah, alors, ci wolof man maa ngi tudd madame Dieng Penda nekk euh, mandataire nationale de la coalition Papa Djibril Fall président alors aujourd'hui nous avons réussi nañu li nga xamante ni moom moo nekkoon second tour bi validé nañu 47 000 parrainages au niveau national donc loolu dinañ permettre tey ji ñu bokk ci élection yii di ñëw ñu waroon a mottali 13000 donc ñu ci 13000 ñu waroon a mottali ñu indi woon 22000 validé ci 16000 encore donc mu nekk liggéey boo xamante ne liggéey bu ama ama solo ñu mhm. ci remercier Sénégalais yëpp ci boor politique bu ñu mënti doon ndax gis nañ élan de solidarité bi nga xamante ni bi ñu lancé parrainage bi sénégalais yëpp fépp ñu ci mën ci bokk ànd nañ ci ak ñun. ndax système parrainage. bi nag système informatique la te ñi ko xam système informatique xam ne day am ay failles. Mhm. donc c'est pas un système parfait donc on tend vers la perfection et je pense que élection yi di ñëw échéance électorale yi di ñëw dinañ ko jël en compte mais li ma wax rek di ko xam sénégalais yi mooy incha allahu rabbi dinañ bokk ci élection yi te élection yi buñ ci bokkee Papa Djibril